Thank you. salaamaaleykum internetu KSTV Sénégal nuyooti naa leen ziyaarati leen bu baax a baax a baax naan leen saasu ne rek dëgër museur ak famille fël nee naa ko tey nag ñu ngi fii si mbuur mm, ci sali li ñu fi indi woon tey nag mooy ami naa saw sociale moo ñu fi indi moom la ñu àndal tey mu ñëw fi gis ngeen journée bi ni mu ko passé macha allah am na solo lool euh, ndax jàngal na taalibe yu baree baree bari xarafal leen nee naa ko taalibe yi dañuy am problème wala dañuy sonn bu ñu tollee ci dugg néegu góor tey seen sëriñ du leen ko bañal waaye it nag day metti ci ñoom pour ñu def ko war a dundal taalibe yi tey ki nga xamante nii moo di Amina nekkat moom moom mooy jàppale taalibe yi mooy yaay taalibe yi moo fi nekk fekk si fii ki nga xamante ne nii moo di xaritam doomu ndeyam seen caali Demba Seen mu gunge ko nag ci bés bi bu baax a baax a baax kon Amina lañ jàkkaar lool waaye dañu ne nag eh, du ñu jeexal nag journée bi te tey ñëwuñu fii eh, defe naa 16 lañ nekk de ah ah DJ DJ go wala boog waaw kay ñu ñëw fas yéene reer waxtaanandoo def débat ndax 8 mars la nag su loolu jàllee ba pare day am nag débat ñu waxtaanee jigéen ñi ah, naka la ñu nekkee ci société bi ku ci nekk rek dama laa dalal te ku ma dalal rek am na lu tax ma dalal la Amina su ma ko dalalee fii tey li mu def moo tax ma dalal ko pour ñu fas yéene waxtaan ndax tey jigéen la waaye kenn ju mën góor la am na it góor yu nekk ci ginnaawam di ko jàppale nag ndax jigéen mënul dem sans góor waaye nag moom it ko am jom la ba tax mu dem ma daal fii dalal ki nga xamante ne nii moom it mooy Khadija euh, di sama naataango nekk ci euh, cent vingt 221 Khadija waaye euh, sama xarit moom tamit ma dalal ko fee mu di Maria moom tamit euh, présentatrice la nekk foofu nga xamante ne ni mooy di Kaolack 221 comme daal tey dama fa yéene ñu waxtaan ñu nit dañuy sonn ah ñun ñu nekk ci média yi dañuy sonn lool lool lool di liggéey ah, boole kook suñu kër ah kon tey jigéen ak société war nañ xam lan la ñuy waxtaanee kon naa laay njëkk a bàyyi mu daal di nuyoo Ami maa ngi lay nuyu. waaw Ndeye Fatou maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di nuyu waa KSTV di leen di sant di leen di gërëm si ànd bi ngeen ànd ak man. dama si kontaan di nuyu sama goro tamit borom KSTV xam tey moom lii yëpp moom moo ko waral parce que moo indi relation bi sama doom moo fa sëy ba lii yëpp am di ko sargal di wax site bi yàlla nañ ko dégg fu ne yàlla na mel ni teenu maam jaara bu soba ku ñëw root si naan di nuyu Khadija sama sœur borom Kaolack 221 di nuyu Maria sama xarit sama turandoo doom moom tamit di nuyu Dijé di ko sargal di la jox sa wàccuwaay tey dina wax ñu ngi fii Sédhiou ñëw nañ euh, mbuur ànd ak suñu médecin yi mel ni Seydou Sabali ak Sow ak Doula Pro ba ñëwee nag tey ànd nañ seeg chirurgien yi ak le ICP de euh, Mbour Sali ak muy Dame Seck ànd naa seeg Xaya l'ambassadrice des talibés bu ñu ne Xaya moom il faut ma def une temps wax ci moom puisque man ak moom ñëpp dañ ne ay jumelle lañ ma ñëw Mbour fekk si ko ñu ànd ànd bu sincère ànd bu ànd bu dëggu dañoo mel ni ñu xamante ay cent ans parce que lu mu xëy yendu si man gont si moom loolu noonu idem tey nag ñëw nañ fi ànd ak chirurgien yi def naa fi circoncision plus de soixante taalibe am na moo jógee foofu tamit def nañ dépistage col cancer de col de l'utérus def nañ fi tamit don de sang loolu yëpp ñu ngi si ànd ak médecin yi dañ ne journée bi journée jigéen la te jigéen moo def circoncision bi ñu ne pourquoi pas luñ ci sargal ànd seeg Touba laay meng puisque moom tamit euh, ñëw na sargal naa ko si jour bi muy une frère boo xam ne exemplaire commun du Sénégal maa koy nuyu di de passage tey moom Ndeye Fatou tey sama xol dafa sedd parce que nga sumb dara sotti ko rek jàmbaar la nga ko mën ak ku yàlla gërëm te gëm naa ne lii may def nii maa ngi sant samay waajur di leen di ñaanal fee ñu tëdd yal na leen gënal fi ñu jógee parce que sama yaay moom ma gën a poussé ma def social. kàddu yi rafet na dama lay daal di jox rek euh, nga joxal ma micro bi sama xarit bi euh, Maria mu daal di nuyoo. Ah, voilà asalaamaaleykum euh, chers internautes bu KS TV. Ah, maa ngi lay nuyu di la ziar ndey ah di nuyu suñu caméraman bi aussi di ñeel ñi ma bokkal plateau bi ah, di kontaan trop nag ci invitation bi tey fii ci Mbour di ànd ci suñu sister. comme ni mu ko waxee sànq rek Amina Social Sow s euh, ma daa di jox ki ma dendal moom it sama naataango la euh, tey nee naa mbégte laay am ci plateau bi ndax li may may mbégte mooy ñun dañu di jàmbaar ah, tey dañuy tagg suñu bopp ñun dañu di jàmbaar di wàcc ci terrain bi muy metti euh, ñuy wane gars yi tey kon man dama leen di wane ñi nga xam dañuy nekk si ginnaaw caméra bi wala ñuy yor micro gars yi di leen di gis tey dama leen di wane nag ñoom it ñu wax nag lan moo leen metti nag jigéen ak société la ñuy waxtaanee ma daal di jox sama merci beaucoup euh, ndey Fatou maa ngi nuyu ñëpp. ah <laughs> man dama fee benn yoon dëgër mu soora tey gars yi dañoo ñëw rek ah. <laughs> waaw mi ngi noonu mi ngi noonu dañoo am da am turandoo macha allah ñu nuyu bu baax a baax waa KS TV di nuyu bu baax a baax euh, waa Mbour ak surtout nag waa Saly. Euh, di leen di jaajëfal bu baax a baax waaye aussi di am mbégte ak contente bu mag a mag a mag euh, participer ci sa émission comme euh, ni ñu doonee ay jigéen comme ni nga ko waxee doon ay jigéenu talaatay ndeex doon ay jigéenu jàmbaar macha allah 8 mars bi ñoo ko moom kon dañoo war a doxal di nuyu nag amina sociale bu baax a baax moom day gi seex la dafa boot ñëpp macha allah uuf ñëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla jàmm. comme tey xam naa ne émission bi di yomb damay bàyyi kàddu gi mu des ci yow rek ñu jël jigéen ak societé tey jigéen ñi ñun tey euh, naka la ñuy dundee ci société bi. ah macha allah comme ni nga ko waxee rek jigéen ak societé ndax olof Njaay daf ne jigéen bu baaxee rek lépp baax jigéen bu baaxee societé bi baax ba tax na nag kon jigéen bu nekk war naa war a mun a xam nu muy toogee wala mu xam naka lay euh, fa muy teg tànkam bu baax a baax ndaxte bu baaxee société baax loolu la ñuy wax jigéen mooy doon yaay mooy doon maam mooy doon bàjjan jigéen mooy doon lépp mooy doon sœur aussi kon war nañoo gën a gëmaat suñu bopp takk suñu ndigg liggéey xam tamit ñun ñooy kan aussi parce que yàlla suñu borom euh, ba mu ñu sàkkee daf ñoo jël jox ñu cër bu màgg a màgg macha allah magasin yàlla kum ko dénk jeex na yàlla moo jël magasin bu mag boobu denkuñu ko kon nag ñun war nañoo gën a gëmaat suñu bopp xam ñun ñooy kan ndax buñ baaxee société bi baax. ay magasin yàlla jigéen yaa ngi tagg yaa ngi ñuy tagg nag dëgg la suñu bés la nag waaye it nag am ngeen tuuti sikk-sikk de ñun jigéen ñi foog ñu ñëw ci sikk-sikk yi nag ñu wane ko génnee ko teg ko ci taabal ji waxtaane ndax fii dañuy waxtaane lépp ah. euh, nee naa ko reer bi tamit day ñëw fii lañ koy taaj reerandoo waxtaan bi gën a neex ah euh, waaw ba tey euh, ndax yomb na tey nga doon jigéen di dugg fi góor ñi di dugg gis nañ ne tey métier bi ngay def bëriwul euh, tey jigéen ñi ci nekk am donte am na nag mi ngi commencé bëri mais bëriwul woon dañuy gis góor ñi ñoo ëpp luñ koy def ndax métti métti yi des fois gàddu caméra bi laa lay waxal tegal nii de euh, des fois nga dem. ci li nga xam ne suñu mbokk politiciens yi mu metti foofu nga xam ne coow dafay bari histoire nga gis nit ñi di mars nga génn sànnante xeer yi ah dëkk bi yëngu nga nga génn doon jigéen ndax yomb na. Euh, macha allah euh, Ndeye Fatou métier bi yombul yomb na yombul euh, parce que amul benn métier bu yomb quand mais d'abord da nga koy bëgg ba pare soo ko bëggee yaakaar naa ne du métti si yow wala poids bi dina xaw a wàññeeku mais nag doon na métier boo xamante ne gaynde dëgg moo koy piiru comme yaa ko wax léegi. nee nga dangay ngay génn problème am si dëkk bi walla comme suñu mbokk politiciens yi ni ñu koy defee euh, léeg-léeg ñaxtu am ah ñuy sànni ay lacrymogène loolu yëpp walla ay xeer nga doon jigéen boo jàmbaaru dëgg wallaay doo génn nit ñi ngay nekkal walla seen waa kër sax dañ lay yërëm ndax dañ naan la ay yow bul génn dëkk bi daa yëngu tey mais nag comme yàlla ñu ko natoo mu nekk suñu métier il faut ñu génne ko ndax euh, pour wan nit ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi toog war a seetaan macha allah comprendre nga loolu la nag ma waaw kay moo tax il faut ñu góorgóorlu tuuti daal ñafe ko ndax dañu am ñoo xam ne ñun la ñuy yaakaar pour gis si loolu wala xam li xew si dëkk bi dañ koy ñàkkante rek daal di koy ñafe mais benn liggéey yombul macha allah. nee ko sama xarit Amina moom xam naa ne euh, ndeysaan dañoo bëgg a berndeel reer bi lay lijjanti waaye reer bi dina ñëw taaje fii ñu di ko reer di waxtaan ah, ku bokk ci émission bi nag doo reer euh, ami. Euh, tey ndax yomb na nga doon jigéen di di nekk ci sociale bi ñu xam social nu mu méttee coono bu ci nekk doo yendal doo fanaanal tey yan jafe-jafe ngay jànkonteel ci terrain bi. waaw dëgg laaj nga ma laaj bu am solo man awma benn jafe-jafe parce que li may def nii dama si ànd ak euh, ndimbal ak suñu borom yàlla moo si teg loxo parce que yombul jigéen di def circoncision. Euh, parce que benn xale rek di nga jënd yëre yi 18000 lay doon ak euh, garab yi muy fajoo li nga war a def yëpp da nga koy def donc yombul parce que est li plat bi du yàq suñu émission bi sax. den ah. daal di tàmbalee. man takos la am ah, yeggalee débat bi daal di sorveer waaw yombul parce que yomb na yombul euh, dëgër. parce que nit des fois nga nekk nga am ñoo xam ne ils sont pour am na ñoo xam ne ils sont mais yow bu fekkee ne da yegg si kaw garab bi ku la sànni nga wàcc fi nga bëgg a yegg doo fa yegg te man dafa am fu ma jëm il faut ma atterrir dama dama dama commencé rek nag lii ma def lu dara maa ngi si 800 talibé yoo xam ne def naa ko ak yeneen don yoo xam ne par surprise dans un mois dina ñëw ak conteneur bi nga xam ne moom moo war a ñëw tey nag ba mu ñëwee Mbour sama fierté la. ma ànd ak yéen bàyyiwu leen ma seetaanu leen ma benn yoon bu ma leen ba ma leen bu ma leen gëstoo rek damay gën a sawar tey loolu si loo xam ne si li ma gën a marqué tey loolu si la bokk parce nga ànd ak ay nit ñu jox la bopp waaw des fois sax ndeysaan ma énervé wu ngeen comprendre ma apaisé ma waaw lenn rek laa si xaw a kii nii sànq sama café bi da koo naan sama café bi da <laughs> kii dafa naan sama café pourtant léegi yow jafe-jafe nga xam ne waaw mais jafe-jafe yi des nga di nga si dégg li ngay dégg neex sax moo ëpp mais ay benn benn ñoo lay wax euh, dara mais nag bu ñu social xol bu rafet la ku ko ku amul xol bu rafet doo ko def social il faut que sa xol yaatu nga mun a tolérer di gérer man nag loolu dama ko mën man mun naa nekk ku ne. loolu moo tax euh, ren si 31 décembre bi ba ma demee kii euh, maladie manto yi ba ma demee di leen di toppatoo gars yi ñu bëri dañ na ma nan nan laa ko mënee maa ngi si ànda woon ak si Khadija mais da ngay xam ne yombul mais bu sa xol nag loo dugg da si génn man mënu ma def social ba pare di di sóor di nekk sama gannaaw loolu munu nekk si impossible. waaw ndey maa ngi lay remercier ci question bi euh, ñun ay jigéen lañ mais ay jigéen yoo xamante ne ay jigéenu jàmbaar lañu. jigéen boo xamante ne dañ koy ñefe ci terrain bi ñun ak góor ñi ñun ñun ñun ñun ñun euh, comme ni ma koy waxee faale wuñ góor ñi ci terrain bi bu ñu ci kii terrain bi ay gaynde la ñuy doon xam nga doon lan moo tax parce que daa am loo xam ne dañ koo gëm am foo xamante ne dañ faa teg fi suñu tànk pour yegg foofu moo tax boo duggee ci terrain bi même loo sonn sonn sonn sonn sonn doo ko yëg doo ko yëg dañuy ànd ak góor ñi di ko ñefe di ko ñefe di ko ñefe ba mu jeex xam nga nag nekk ak jigéen nekk jigéen di liggéey liggéey góor daa xaw a métti comme ni ko Khadija waxee léegi léegi day gàddu bot day sañ sa ba jekk ndeysaan bot saag bi gàddu trépied dugg ci terrain bi ñefe ko ñun nag euh, ñu ay jigéen ay jigéen yoo xamante ne jigéen royukaay lañu ay porteur de voix lañu euh, waruñoo waruñoo xajamal suñu image waruñoo def naka sudul dul noonu boo xamante ne ni bu ñu rombee dinañu joxoñ naan diw de moo nga nee moo fi def lii wala moo fi wax lii moo tax à chaque fois rek daa xam dañu am bu baax loo dañ fa xam dañ dañ ciy teg suñ dañ fay teg suñu tànk di rafetal suñu suñu suñu suñu liggéey di ko defee nag ni mu waree ba kenn duñu ci xañ duñu ci duñu ci euh, comment dirais-je duñu ci joxoñ wala mu ñu ci euh, wax na ko sudul noonu ndey euh, nga xamante ne nii moo di Khadija euh, Khadija euh, comme laaj bi ma laaj laajtee dama lay gën a dëggalal yow laaj bi ban moment na ngay toog sa kër toog ndox sa yaay wala sa ay rakk ndax xam naa ne moom célibataire nga moom. <laughs> macha allah wax nga dëgg de ndax euh, xam nga ñoo ko opté ba pare nag loolu dama koy wax ba pare métier bi boo ko opte am amour bi bëgg ko aussi da ngay nangu rek. léeg-léeg ndeysaan sama yaay sax daf may yërëm ndax weekend bi day foog ne dinaa noppalu parfois dimanche jot ñu woo la wax la benn programme nga dawati fëkkati caméra yi Maria su ma ko owee ma ay eh, Xadisa ku dañuy dem man ko ah woo nañu de nañ daw rek suñu nattu la mais sant yàlla alhamdulilah ba nga xamante ne euh, ñu ngi koy def ak joie comme ni ma la ko waxee euh, métier boo ko bëggee di ko def ak joie euh, nu mu métti métti da nga koy da nga koy ñafe rek ba nga xamante ne di nga si am réussite te sax nag man dama siy kontaan. Mhm. dañ siy kontaan euh, ndax Maria wax na ko léegi macha allah da ngay gis am na ndeysaan suñ benn xarit boo xam ne dañ wax yéen Khadija man damay gis weekend bi samedi day jot gaa yi dem ay restaurant ñi dem ay boite ndeysaan yéen ñaan ngeen ànd dugg si terrain bi dem stade dem ay navetaan gàddu seen matériel yu si man ko nu ñuy def comme euh, ndeysaan àdduna bi dafa toll foo xamante ne dafa am tuuti avancement euh, boo si nekkee il faut nga xool bu baax a baax xam ne ah fii nii la monde bi jëm te daa bouger il faut nga bouger ànd ak moom waaw foo nga jeexe jeex jëm fa jëm. daal di jeex rek ànd ak moom ñuy jeex jeexe ba tey ma leen di fàttali ne ñu ngi jeex jeexi ci suñu émission bi nga xamante ne nii moo di 8 euh, mars bi femme ak société ci la ñu nekk ba tey euh, Amina euh, tey. macha allah am ngay xale am nga njaboot tey sa waa kër say famille eh, yow it ban moment ngay toog nag eh, daal di social nag sa kër toogandoog sa waa kër ak sa famille. tooguma moom mais nag kooku kooku boo gis am na dàng-dàng des fois damay toog dugg si waay xëy bale fobeere raxas bool def lépp li ma war a def man jeek piir laa man jeeg piir yow yow gis na yow dugg nga sama kër. man damay togg ba mu neex ma teg te nag balaa ma nag am lu ma neex sax vendredi jot ba ma def sama plat mbaxalu Saalum xam nga Saalum Saalum laa Koungheul laa dëkk Koungheul gee laa dëkk sama doom gis nga leen dama leen a jàngal waañ te amal lañ waañ demuñu fenn togg rek la ñuy def ñoom ñëpp maa ngi leen siy sargal maa ngi sargal Marie Ndiaye sama doom te mu ngi armée de l'air wan ne jigéen baax na góor baax nday faatu Fatou Fatima ñoom ñëpp. tey ba su jigéen la maa ngi si profité di leen di sargal parce que déggal nañ ma maman sama doom jugee ba Dakar ñëw ànd ak man si activité bi may def. ma opté nii mu opté nii mu neex ma te man su ma la waxee ne la maa ngi si presse doo ko gëm maa ngi si presse mais da ngay foog ne waaw da may foog ne social bi rek laa nekk mais non lépp damay waar lépp loo xam ne su ma si amee dërëm dinaa ko bokk dinaa ko sànni si social bi bokk ak sama njaboot rek dama siy jug parce que yow gis naa la soo toogoo. jigéen nga mais ku sa jëkkër gërëm fu nekk jeeg piir buñ gërëm daal liñ ko or yow dëgër musóor maa toog ñu gërëm la sant la gërëm la waaw mu neex ma lool nag li ñuy wër si jeeg yëpp mu si yow waaw parce que kenn waxu ma maa jot sa jëkkër mu ne ma safoo na ma faale na ma dina ma toggal dina ma yekkal kenn du yow balaa déwén 8 mars bii yal naa am billet si social bi ba jox ko ngeen dem ziare ngeen man lan moo tax simple ma rek laa xamul man man li tax simple ma man loolu moo mën a xari ba tey ñu ñëw nag euh, dañ ne femme ak société daf ci am suñu mbokk yoo xamante ne ba tey na neex euh, ji euh, yow tàmbali rek ñu fekk si la suñu mbokk yoo xam ne dañoo nekk ci societé bi muy suñu mbokk jigéen ñi ñu gis seen melokaan man du ma ne bonuñoo du ma ne dañoo bonaa des fois ñu nekk juumte ndax tey ñi ngi sali gis nañ xam nañu sali lañ nekk gis nañ sali tey gars yi niñ fiy dundee nga gis ay xale yu ndaw euh, bu 19 heures nga gis leen ñu wàcc euh, nekk ci mbedd yi mu leer na leen ne ñii ñi ngi ci leneen euh, tey yow boo gisee loolu lan ngay yëg ak tey sa moroom yooyu tey lan nga leen di wax. macha allah ah dégg laaj nga ma de <laughs> dëggal mu soog <laughs> macha allah waaw sama yaram day daal di daw. sama yaram day daal di daw su ma gisee loolu ndax da ngay gis ñoo xam ne dalee leen ay xale yu ndaw lañ te dañoo réer réer moo leen jàpp ñooñu nañ leen jàpp indiwaat leen ci société bi ndax jigéen bonul jigéen bonul ñu wax leen fan lañ bokk wax leen fan lañ gënee balaa ñu leen wax fu ñu leen gënee loolu la sama maam doon wax macha allah euh, nañ leen yeddaat delloowaat leen ci société bi parce que man mënumaa gëm ne jigéen mën naa bon bu ñu leen jàppalee conscientiser leen wax leen ñoom ñooy kan ñu xam seen bopp bu boobaa dinañ gën a xam ñoom ñooy kan te ñu ñaanal leen yàlla delloo si leen dëpp leen si yoon bi macha allah mais bonuñu dañoo réer rek. loolu ñu nekk di ko liggéey euh, waajur yi amuñu ci part. waaw d'une part euh, waajur yi am nañ si part de responsabilité d'une part mais tamit société bi moo toj dëkk bi moo toj parce que parfois waajur yi dinañ yar mais aussi da ngay génn àndandoo bu bon daal di lay tourner. voilà parfois aussi am na si waajur yoo xam ne tamit ñoom it dama leen di dut baaraam parce que am sa doom tey jii mu ñëw indil la dara te laajoo ko fa mu ko jëlee toppoo ko wala buy dem nga naan ko fexeel ba nga indil ma nangam te xam nga ne liggéeyu ko loolu tamit yaa ngi koy poussé pour mu dem def li bon kon nag yaakaar naa ne waajur yi ngi yaraat xale yi ñu jéem a xoolaat xale yi bu baax a baax jëm leen di euh, toppatoo ndaxte ay xale yi ndaw nag ngay gis ñuy def loolu mag ñi responsable yi gisoo leen si de mais ñi ngay gis foofu doo dajeeg ñoom rek sa yaram day daal di daw ndax sama ay moromu rakk lay doon wala ñoo xamante ne macha allah war nañoo doon te que bu ñu amoon ubbi woon ay bërëbu liggéeyukaay yoo xam ne xale yi dinañ si gis seen bopp parce que man des fois damay xëy suba sama yaram day daw damay dem kaas la gis xale jigéen ñi di rang pour bindu jànka mais bu liggéey amoon ñu investi Sénégal am na loo xam ne war nañ ko fi mën a def loolu moom dama koy wax la gouvernement Sénégal Macky Sall en tant que président de la république na gestu xale yi ñu liggéey parce que léegi xale yi dañoo jeunes yi dañoo engagé ñooy voté ñooy def lépp mais bu fekkee ne ubbi nañ ko ubbi nañ ay kii yoo xam ne liggéey euh, liggéeykaay yoo xam ne xale yi nañ fa gis seen bopp kon bu boobaa ñu xalaat leneen jigéen baax na góor baax na des fois nit ki sax dina def dara fekk lu bonam mais sur kii yi mu koy fekk condition yi mu koy fekk leen di ñaan ñooñu yal na leen yàlla jubbanti parce que fii lu am rek yàlla la lu am yàlla la ki tëdd si lalu hôpital bi yàlla la ki dem yàlla moo ko moom moo ko jël kon ñun jigéen dafa am ñoo xam ne ñi ñu war a ñi ñu war a jàppale ñoo ñu jàppale wut maa ngi si woo population yëpp yëpp population Sénégal ñoo xam ne 8 mars bu jotee ñu sargal ñu mais sargal bi du la 8 mars rek ñu ngi si waañ bi ñu ngi fépp. waaw Maria da ngay ñëw wax waaye du dangaa mën a social di ngay ñëw ci ñi nii social leen ah, fexe leen jëlee ci lu ñu nekk ñu ne ci leneen euh, euh, yow Maria. ndax parent yi amuñu ci part tey ni nga xamante ne ni xale yi noonu lañ bëgg dundee ci société bi. waaw dëgg euh, merci beaucoup ci question bi parent yi d'une part am nañ ci am nañ ci euh, part de responsabilité mais man duma leen blâmer duma leen blâmer parce que parents yi luñ mën luñ mën niñ koy def ñu ngi éduquer xale yi ñu ngi leen di teg ci yoon ñu ngi leen di yedd ñu ngi leen di yee mais comme ni ko Khadija waxee sànq rek. léeg-léeg àndandoo yi bon moo leen di pousser ci yenn yi ak tamit bëgg laa vie facile te xale yi léegi dañoo matérialiste bëgg nañ takk ci cheveux yi guddi yi bëgg nañ sol ci yëre yu rafet yi bëgg nañ yore portable yi cher yi te liggéeyuñ gor ñu yotul loolu mën na leen pousser ba ñuy def yenn yenn yi nga xam ne euh, société bu bugg ko wala li nga xam ne société da leen di joxañ man du ma parent yi man xale yi laay blâmer parce que xale yi léegi ñoo jël seen yoonu bopp. parents yaa ngi def de parents yaa ngi éduqué de dëgër parents yi ñu ngi yar doom yi mais nag mbedd mi fi mu toll nii moo jaxase dëkk bi. ay naka ngay mën a juree sa doom mu nekk jigéen 16 ans lay doog a am yor sa dépense su kër di fay courant di fay ndox doo ko laaj fan la ko jëlee su guddee. mu ne la euh, maa maa maa ngi euh, restaurant ba laa nekk fa lay fanaan wala fast food sàngam laay liggéeyee yow bu xëyee doo dem nga lijjanti fi muy liggéeyee du ñu gis du parents yi duñ dem lijjanti loolu bés bu xamante ne nii gis nañ ci internet bi publier nañ ay photo wala dara ñuy xaru di bëgg dee parents yi foofu ndax ñu ngi def seen rôle. loolu moom sàggante laa koy laa koy laa koy tuddee parce que mënoo am sa doom majeurut à l'âge de 16 ans 17 ans. mu ne la maa ngi dem liggéey ci ci ci ay resto man loolu du ma ko du ma ko du ko def man du ma du ma ma autoriser benn doom boo xam ne majeurul muy dem ci ay ay resto même bu fekkee liggéey restaurant bonut mais dafa doon milieu boo xamante ne ku nekk nga fay dajal ku nekk ngay dajal parce que ku baaxam fa ku bonoon ko fa kone keneen keneen keneen keneen keneen nga fa euh, ak ñi nga xam ne aussi tamit parent yi nga xam ne aussi dañuy pousser seen doom yi ñuy dem di jëli ci mbedd mi di leen andil ñooñu tamit euh, lu ma leen di wax rek moo leen delloosiwaat seen xel parce que doom nawle la peut-être ñoom ay xale lañ seen xale seen xel ak seen xalaat mayeegu leen yenn mature guñ ah amaguñ maturité boo xamante ne nii dinañ toog ba réccu yiñ doon def mais duñ ko duñ ko duñ ko xamagum heure bii nag muñ demee ba ca kanam. si la ñu xam ne ah ñun kat ndekete ci yoon bi ñu nekkoon ni du yoon bu baax may waxaat rek euh, di oowaat rek euh, di yeddaat suñu sama mbokk jigéen ñi ak euh, góor ñi nga xam ne ñoom ñoo yor ñoo am njaboot gu jigéen nañ leen gën a nañ leen gën a surveiller nañ leen gën a teg ci yoon nañ gën di waxtaan ak ñoom parce que instant yi jigéen ñi ak góor a yem pour yar ko instant yi dina dina dina xaw a jafe trop xam nga lu tax parce que internet baa ngi fi te internet bi lépp. da eh, amu am na lu net am na lu netul am na lu baax am na lu bon te fi ñu toll nii même boo fekkee da ngaa yar sa doom éducation ba nga bëgg même boo ko ca defee après bu duggee ci internet bi dana def na ko dul noonu wala dina am koo xam ne dina ko influencer mu def na ko sudul noonu dëgër moo tax fi ñu toll nii dëkk bi dafa toj. dëkk bi nee na rajax xam naa ne ci njeexintalu émission bi la nekk reeral mën ngaa jël nga reer euh, tàmbalil nga reer hmm, macha allah waaw comme ba tey ñu ngi reer kontaan naa lii laa ko bëggee ñuy reer di waxtaan euh, lii mbégte la firian ah. ñun danoo xewle tey ñun suñu bés la lu ñu neex def nañu ruube palaatu ba Amina ruubeel waaw comme damay daal di bàyyi gars yi damay daal di bàyyi gars yi daal di tàggoo damay daal di njëkkee ci ci ci ki nga xamante ne nii moo di sama xarit euh, ma bàyyi la rek nga daal di tàggoo. macha allah merci beaucoup euh, di kontaan bu baax nag si émission bi waaw pour ndaw ndaw ñi macha allah euh, di leen jaajëfal di tàggoo bu du tàqalikoo lay doon macha allah euh, suñu mbokk jigéen ñi nag ñu leen di ñaaxaat di leen di waxaat ñu gën a gëm seen bopp te xam ne jigéen lañu jigéen day doon yaay day doon li nga xamante ne mooy bàjjen mooy doon maam fi ngay doonee jànq bi ak njagamaar bi ak fi ngay doonee jeeg bi at fi ngay màggatee ah daa gége loolu nañ ko bàyyi xel te nag euh, dem ba doon fi mag am ay njaboot ñu lay waxal naan seen yaay nii la fi nekkee woon wala seen euh, maam nii la fi nekkee woon yaakaar naa ne am na lu ko gën kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñu leen di jaajëfal di leen remercier bu baax merci beaucoup. ma bàyyi Amina mu tàggoo ami tàggoon. waaw. maa ngi si yéen di leen wax ne leen tey mbuur mbuur dañ maa sargal dañ ma sargal si ñaari facette waaw. di di kontaan si sama waa plateau bi di leen wax na waa yéen yéen mun naa di ànd ak di leen di social yéen mosu leen maa social ñëw leen ngeen jënd seen takos di ko paasante di profité si émission bi. yooyu yaay bon ah, moom tey ma 8 mars bi jigéen ñee ko moom. mais tey man maay ex exceptionnel bi xalwa ah waaw. mais maa maa ngi lancé sama message di wax DJ ne ko tey dëgër war woon naan sama kafe bi <laughs> ailleurs am nga problème dëgg waaw naanu ma lëwal naanu ma lëwal dama sonn tey sonn naa wuy bëgg a dee mais sama ndékki dañ ko ko jox mu ne dafa sedd lu sedd moom dan la ko mën a naanee en tant que journée la femme ah métti na ma lool tey loolu loolu lu ma métti la waaw di sant nag di gërëm di jee nekk nit ku baax nit ku yaru di la ñaanal rek yàlla na jàmm pan sa kaw di ñaanal waa plateau bi déwén yàlla nañ toog fii ñun ñëpp yàlla nañ fi daje yàlla bu kenn manqué waaw li may joxal nag Maria sama xarit moom it mu daal di tàggoo. Euh, sama tàggoo des na parce que gis nga ndox bi waa Aquaterra tey hôpital taalibe ñëpp Aquaterra lañ naan. day bu dugul xoola émi xoola du ngeen ma dugal yow waaw damay tàggoo yow de si soo ba tey Aquaterra ngay naan nga naa ma ndox bi kañ la génn waaw ñu ngi ba mbaaw ndox mu neex la ñu ngi ba mbaaw ànd ak ñun si suñuy circoncision ba pare lépp dara manqué wut lépp loo xam ne waaw loolu loolu yëpp waxtaan la waaw loolu yëpp waxtaan la parce que barki démb rek lañ ma jox ay euh, fontaine yu mucc ayib ma yóbbu ko si imaam yi si jub biir jumaa yi ñoom ñu social lañ kon ñun bu ñu nekkee sur le terrain rek ñoom bu ñu gungewul duñ dem waa Aquaterra kenn du yéen ndox mu sell te neex macha allah. voilà dëgër euh, mbégte ak contentement rek lañ amoon euh, bokk ak yow plateau bi. macha allah ngay ko talentueuse macha allah ñi lay suivre nag bu baax a baax di la encourager euh, di remercier nag ñi nga xam ne ñoo ñoo toogoon di ñu seetaan ak équipe bi ngeen àndal ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier aussi suñu sister du ma ko taay di ko wax muy Amina sociale ndax moo ñu tax ñu déplacé wu depuis Kaolack ñëw fii ci sali rien ko pour accompagner ko ci li muy def di leen gërëmaat waa KS TV ci kaw ci kanam ci lu baax waaw waa Kaolack 221 tamit ñëw nañ. teewal si waa KSTV ah du noonu sama sama xarit dëgër macha allah di jee maa ngi lay bëggee bu baax a baax. ale merci beaucoup et à la prochaine incha allah. merci beaucoup Maria merci beaucoup Amina merci beaucoup Khadija. maa ngi leen di jëfal bu baax te di leen kontaane naan leen lii kese laa leen andiloon nag ci wii mars bi du ma ne kese sax lii lépp. ndax tey tubaar fakal la journée bi dafa chargé wu gis ngeen dañ koo xëyee ba ngoon gi tey daal di koy tëjee fii ci saison ah saison day soow na ndax gis ngeen reer yi macha allah tubaar fakal la ndox mi nag neex na saf na nëxut léegi da ngay naan yeneen ndox yi maa leen tudd ay gom lañu danga leen di naan gis ñuy nëx ci biir ah teñ na ndox la nii ñu cadré ko mu naan jënd sa butéel dugg ci bitig bi tijji nga gis mu nëx wala muy saf leneen la duma ci yegg kon ndox mi saf na neex na daw leen ngeen jëndi ko ah day waaj a doon sponsor nag ci samay émission saison ndaanaan bii da koo bëgg a sponsorisé kon ah du yomb comme di jéego maa ngi leen di tàggu rek fii ci Mbour euh, di leen jox dig daje rek ba beneen yoon ak feneen fu ñu war a dem nee naa ko man ak di jéggoo xaar dëgër musóor waar kee yonent bi du yomb loo leen soxla loo leen sentir rek fii doo ngeen koy amee ci ñun kon di jéggoo nañ reer daal di tëj émission bi ba beneen yoon kon ko <laughs>